dem ci ban réew Euh, xanaa tàmbale ko rek euh, ca euh, Mali naam am na lu ca yokk di fàttali rek ni ñiy jiite CEDEAO di kuréel googu nag boole réew yi fare Afrique sawjant ñoom nag ñoo daal di yëkkati ay kàddu ca ab ndaje nag bu ñu doon amal ca Nigéria ab sommet la di sàkku rek daal ca Mali ñu amal fa nag ay élection nu mu gën a gaawee àppal nañu leen weeru février la ñu wax lu ko mooy nag yeneen i daan dana tegoo ci seeni kaw naam am na yeneen daan yu tegu woon seen kaw ba noppi noppi eh, CEDEAO nag yamu ca ndax ña ngay sàkku rek eh, ca soldat soosu nga xamante ne ñoo fa amaloon coup d'état ba nañu def seen kéemtalaay kàttan daal ba teg ab calendrier bu yees su ko defee civilier eh, dikkaat ca bopp réew ma Éthiopie la ñuy wutali ak way fippu tigrien yooyu nag tàmbaliwaat nañu di nangu rek yenn ci dëkk ya bokk na ci Lalibela l'armée armée fédérale ba nag ak coalition pro gouvernementale boobu nag ànd ak njiitu jëwriñ boobu ñu gën a xam ci Abiy Ahmed ñoom ñi ngi doon def sax seen kéemtalaay kàttan di nanguwaat nag dëkk ya ca loxoy way fipp ya waaye dafa mel ni fipp yooyu euh, dañoo daal di nag taxawaat amaat ndëgër laay ngir mën a euh, gën a jàmmarloo ak ñoom ba tegaat loxo dëkk boobu ma wax léegi muy Lalibela te Lalibela boobu sax booy xool euh, UNESCO def na ko kon patrimoine mondial askan wa yeewoo ca Nord Kivu ca République démocratique bu Congo la ñoom nag jaaxle nañu lool rek ci armée bu Uganda Uganda bi fa ndax dañu gis ni euh, kon soldat soosu nag ñu ngay gën a am tànk euh, ca réew ma ci njeexitalu weeru novembre bi ci la ñu tàmbalee ñëw te bu ñu dee xool nag am na xaatim boo xamante ne doxoon na ci diggante euh, jëriñ juñ dénk wàllu kaaraange bu kongo ak naataangoom bu nekk ca Uganda solo si mooy fexe ba way fipp yooyu nag fekk baax ca Uganda tey lëmbee réew ma ñu jëlee leen fa fële ci États-Unis la ñuy wutali ak ngelaw lu métti li fa am nag euh, ci ñaari fan yi weesu ngelaw lu métti loolu tax na bay bakkan yu baree bari rot fa euh, jege nañu juróom-ñeent fukk mbaamu ëpp ko rawatina ak euh, dëkk boobu ñu naan nag fild ña fa faatu nag kon bari na tey mu mel nii kon ña ngay def seen kéemtalaay kàtt nag ngir mën a jugaata ci jafe-jafe boobu Mayfield nag ma nga naan ma nga féete fa ñu naan kii mu nekk nag kon ab dëkk boo xamante ne sonn nañu lool. waaye nuñ ko waxee rek ngelaw lu métti li tax na ba tey jii ña ngay seet daal nu ñuy mën a jugaatee ñu ne dana yomb am du yomb waaye li leer ba leer mooy la nu yàqule bari na tàggat yaram soxna naata la ñuy jeexalee ak euh, Messi mi nga xam. Marcel mm, mm, moom la Paris Saint-Germain concerné. Marcel gis nañ ko sànq ba léegi mi ngi euh, mi ngi mi ngi sourire. Euh, yow tamit ay waxu Messi bokkatuma ci. ah bon ki ne Deme yow tam daa mel ni tey jii da ngaa engagé bi da ñëw bëgg a wan ne daal ancien athlète nga ah. ñànd nañ <laughs> merci beaucoup merci beaucoup ki ne dem Fatou euh, léegi léegi incha allah dañuy jàll ci euh, beneen ponk surprise la nag léegi la.